li mu def lu baax la bàyyi na poste bi mu yore woon secrétaire général Pastef loolu la Pastef waxoon loolu la Sonko waxoon donc loolu respecte na kaddu kaddu bi respecte na ko nekk du responsable Pastef wante loolu tekkiwul da ngay bàyyi sa coalition bàyyi sa parti ku nekk président de la république soo bàyyee sa parti wala nga bàyyi sa coalition man nga am jafe-jafe parce que da ngay sori militants yi da ngay sori alliés yi donc baax na nga teewu seen réunion ñoom ñu xam sax lan foo bugg a dem ak naka nga bëgg a demee ba il faut ngay expliquer ñooñu muy parti bi muy coalition bi donc loolu lu baax la wante nag lu ñu war a bañ mooy que coalition bi wala parti bi nekk pour seddu bu dee pour seddu la parce que aakimoo lépp wala coalition bi aakimoo lépp mais lu daloon Wade dal Macky Sall dina leen dala donc ñoom tamit war nañu moytu euh, coalition bi daal nekk euh, une coalition de partage du du gâteau